seen conférence de presse APR bi dañoo am beneen jàng tamit jaram dama conférence de presse conférence de presse conférence de presse donc da jàpp ni Mimi Touré n'a pas un mot à dire d'accord mais dama ni conférence de presse APR après sortie wu président de la République Euh, euh, li nga xamante ni génn na fa yëpp aju na fa yëpp ñu démonter de toute pièce li nga xam ne président wax na ko fa yow jaraaf noo ko jàngatee ak ci loo d'accordul ak ñoom ndax gisuñu la ca conférence de presse xam nga xam nga conférence de presse boobu moom demuma fa parce que ñooñu doon def conférence de presse bi mooy lobby bi nga xam ne nii ñoo xeex candidat bi nga xam ne moom lañ tànn ñun coalition bi ànd ak moom muy Amadou Ba ñooñu ñoo ko xeex ñooñu mooy ñi nangul ñooñu mooy ñi nangul Macky Sall hmm. xeex bi mu doon xeex Amadou Ba ñooñu mooy ñi nga xam ne dama lay wax dama ne hmm. ñooñu mooy ñi nga xam ne d'accordoon nañ ak président ci bañ a jàppale Amadou Ba dafa am ay responsable yoo xam ne dañoo bañoon te dañuy bañ ba faw parce que ay góor lañ ba ba ñuy dee man dooma joxoñ Amadou Ba ne ma moom la ma futteeku ak li ma daj ci yow ñëpp xam ma ci yow amul kenn koo xam ne nii man su ma su ma loyauté envers Macky Sall di nga ko di nga ko di nga ko mm-hmm. kenn nag Sénégal ñëpp xam nañ su ma diggante ak président Macky su ma nee nag kii la ma dem di ànd ak koo xam ne nii moom moo ma ko joxoñ mm-hmm. ma xëy suba ñu teg mais benn benn schéma boo xamante nii pour combattre ko euh, man su ma cest à euh, ñaanuma yàlla dund lu mel noonu duma ko nangu donc tey donc ña doon def loola sorti boobu ña ko nekkoon di ko def mm. mooy ña doon attaqué Amadou Ba mooy ña doon attaqué képp ku ànd ak Amadou Ba mooy ñi xeex ñi àndoon ak Amadou Ba moo tax dewuma ci conférence de presse boobu mais le contenu du lenn lu dul un président de la République bu wax raconté ay contre-vérité ñu xam ne lii ay contre-vérité la ñu indi ci ay leeral te leeral yi leeral na askan bi ci lu bari parce que xamal nañ askan bi que ne Bassirou waruñoo mën a wax nag ne day jël fonds politique yi def ko faux secret mel ni comme si différence dafa am xamal nañ askan bi que ne mhm. Bassirou ba mu toogee waxtaan bi neex mhm. ah journaliste yi tiim ko mais mu bëgg a gëmloo nit ñi ne moom euh, def na la mu waroon a def parce que lu mu waroon a def la te defu ko mhm. bi mu ñëwee devant les journalistes pour faire comprendre aux Sénégalais que ne moom il a joué son rôle à savoir il a fait les premiers pas pour fexe ba jàmm am pour que assemblée mën a defaraat seen euh, règlement intérieur pour que DPG bi ñu mën ko tenir foofu mais loolu noona loolu noona moom looloo noonu ba mu ko bëggee wax ba mu ko waxee mais ñoom wax nañ askan bi ne non c'est pas vrai nous, nous, de l'Assemblée, la présidence, ñoo dajee toog waxtaan ba pare interpellé cité nommément koo xam ne moom la àndal partisan yam la daal ne Ayib Daaf ma nga woon ca réunion ba ñun ñoo toog ne président assemblée na jël contact ak le président de la république mais du président moo woo président assemblée. loolu contre vérité la yoo xamante ni ñoom ci seen point de presse bi ñoom ci seen point de presse ñoom leeralal nañ ñu ko. très bien en deux minutes Serigne euh, concert casserole bi am <coughs> université euh, UCAD noo ko jàngatee en deux minutes rek ñu dalal suñu. waaw parce que loolu xam nga bi ñuy sànq def résumé bi. Mm-hmm. nee naa la euh, expression la. parce que étudiants yi jàpp nañu ne aujourd'hui seen ay condition seeni nekkin am na si loo xamante ni jaaduwul tegul ci yoon. donc utiliser nañ l'une des moyens d'expression pour faire entendre aux autorités mm. la nga xamante ni moo leen di naqari ca nekkinu université maintenant nag c'est aux nouvelles autorités de prendre leurs responsabilités mm. parce que wax naa ko léegi te wax nañ ko ci sànq Seynabou gis nañ ni Ousmane Sonko moyen d'expression bu mu doon utiliser la des fois pour gën a mettre li nga xam ni que la pression ci autorité yi fi nekkoon aujourd'hui tey ndaw ñi nga xamante ni pour la plupart daan nañ ci ànd ak moom itam mm. ñoom ñoo jël bool yi aussi pour manifester la nga xamante ni naqari na leen maintenant nag jàpp naa ni moyen d'expression bu ñu autorisé la ñi nga xamante ni tey ñoom lañ dénk nguur gi danañ jël seen ay responsabilités par rapport au au aux préoccupations <laughs> par par rapport au Serigne mënul Serigne cest à ñii xam nga li mu wax waa Benno ñii les journalistes chroniqueurs yi nga xam ne ay pro pro Pastef lañ dañu. xaw a non ne dis pas ça oh, oh, ne dis pas ça pro Pastef ngeen. non non ah, oh, ko démissionné ko fële. xam <laughs> nga lu ma jaaxal. ko gis naa gis naa ñu def benn communication wane leen yéen ñett yow mbaw ak ak kii ak hmm. euh, Serigne Saliou. Hmm. Serigne moom daw na moom. yow yaa ngi foofu ba léegi. daa doon bàyyi jàmbur Serigne daw. donc donc ñoom ñii nii. si yow ñoom ñi ñan man bul yàkkamti defe naa am nga nawle sa nawle ngi ñëw bu dee xeex rek nga bëgg daa ngeen xeex voilà ah ok mais le plus important le plus important jàpp naa ni li nga xamante ni def nañ ko ah. expression la pour wane li nga xamante ni aujourd'hui moo leen naqari la leen naqari nag autorité yi xam nañ ko parce que yàgg nañ ci am taxawaay si seen nekkin ca biir université kon doléance bu légitime la na ko autorité yi jël en compte voilà sëñ man moom du ma si ndax wax naa si sànq li ma si doon nekk na moyen de communication comme kii ni mu ko waxee mhm. comme Serigne ni mu ko waxee léegi mhm. Ousmane Sonko aussi yàgg na dem université xam na ni aussi euh, impact bi nga xamante ni étudiants yi moom lañ amoon si si biir PASTEF si combat bi nga xamante ni moom la PASTEF doon dund comme tey bu étudiants yi demee ba am lu leen naqadi daal di utiliser le même moyen de de communication que bi nga xamante ni ñoom la Ousmane Sonko yore woon temps mu nekkee si ay jafe-jafe je crois que moyen la pour euh, les autorités daal di toog déglu leen waxtaan ak ñoom jéem a trouver ay solution si domaine bi waaw d'accord ko woon. ah waaw très bien. non da nga leen da nga koy waxee da ah mais wax na ci ba pare moo tax bëggu cee demaat de manière. non wax naa li may wax ba pare. mais lii lii les conséquences de cette voilà ku yar sa xar ba mu doon kuy. yow lay njëkk a mbëkk loolu nga waxoon. waaw mais jarul loolu jarul mu si dellu ay je ne retire pas mes mots. loolu nga waxoon voilà dama koy fàttali président Abdoulaye Wade initié woon na ay ay sagar yu xonq yi. waaw président Abdoulaye Wade euh, woon na sagar yu xonk yi euh, ba wax dëgg yàlla mu nekkoon moyen de communication pour di dénoncer wala boog di wax nit ñi li leen naqari président ab ab ab président Macky Sall ba mu ñëwee moom nee na du gis lu xonk. ñii ci biir régime mu président Macky Sall génne nañ concert casserole ba nga xamante ni ñun ñëpp décrier nañ ko parce que déjà Serigne euh, wax na ko sànq tapage nocturne mën ta weesu guddi jot ngay ngay tànqal nit ñi surtout ak benn benn heure bi alors aujourd'hui étudiants yi nga xamante ne suñu mësaan a wax mouvement d'humeur wala ñu ni ah euh, président euh, ñu ni ñu ni njiital Pastef lii dafa am problème buñ ko ko si digganteem ak Adji Sarr bu buntu université la bëggoon jaar ñu ni du jaar parce que y a a yëngal aujourd'hui étudiants yi def concert de casserole Diarra Ndao nan nga ko jàngatee euh, euh, euh, ci ci ci ci contexte bi nga xamante ni moom lañu nekk ak ci air bi nga xamante ni moom la ñu nekk mais merci euh, Tima mais duñ def lu dul lu dul lu dul lu dul saluer quoi ah saluer parce que c'est c'est quand même euh, pratique la boo xamante nii wute na ak la nga xam ne nii mm-hmm. moom ba muy wut ba muy wut noonu la doon defee ak ñoom c'est-à-dire ñooñu noona ñoo taal université mais étudiants yooyu noona yi nekk biir cité mm. mais ñooñu ñoo taal université